ñun dañ lay ñaan ñun ay waa Jiwaar lañ lu mat juróom-benn làmb ngi nii wa ñun amatuñ poids lourd poids lourd bu ñëw day génn xoolal lii du sànni ak kan mooy final instant bii nii li ñu ko ñun dañuy génn dem ba dem bay dem ba Dakar di seetaan làmb te ñun duñu waa soo amuñu poids lourd amuloo neexul waa ñun am nañ Ablaye jaay am nañ Adama Goudia booy yi a ngi fi El Hadj Ndiaye mais nañ ñu dimbali ñu jàppale booy yi xam nga ñun ñuy paas ñun dund paas gis nga lamb yaa ngi dégg final jot na rek ñëpp dem xam nga loolu bu nekkoon mbaru jiwaala moo fi nekk même buñ ñun ñu ñun ñun ay ñun lamb la ñuy dund yëgi ni yow yëgi ni yow waa jiwaala nga mais jàppaleel booy pour booy mën a am dañuy ñaan rek est-ce que dégg nga li ma la mais xam nga tamit dëkk bu toll ni jiwaaloo ku nekk nekk fi te amuñu poids lourd loolu neexul nañu jàppale suñu. suñu mu nekk dëkku làmb. te mu nekk dëkku làmb ñun ñun ñun dañoo war a am ñun war a am poids lourd man xol laay waxee ko waaw barki alxuraanu karim est-ce que dégg nga neexul xoolal làmb ji fi mu toll ñaata làmb juróom benn làmb jiwaalo waay waay non non waay.